man ma warlul leen weer wu dee ma am lu ma la jox nga jox ko yaa xam loola tey nit ki doon ko def waaye bu xam ne bëkkan waru waru dal la te loola bëggul mu dakk mu ne tey bàyyi naa fi immeuble boo xam ne wala action boo xam ne wala xam tool boo xam ne tey la ca doon génne na ma wuuti ca loolee ma daan def ba tey wax am naka noonu ni mu walaa bale dama laa jox misaal ci fiir gën a jege mais ni mu walaa bale na walaa bale fee ci jumaa jee ak personnel bu fay liggéey ak entretien ba ak courant ba na la walaa bale ci hôpital wala dispensaire boo xam ne moom itam bàyyi defal yàlla xëy na yow xëy na yaa ko tabaxan sax mu nekk waqf naa nekk bi ngay dund seet nga sa gox nga tabaxal leen benn hôpital wala benn dispensaire wala centre de santé wutal leen ambulance ak lépp boole kook nag weer wu dee nga jël enveloppe bu diis jox leen pour fonctionnement ba ñoo xam nag fa ñu koy jëmale ca facture courant yi lañ koy jëmale wala ca motivation euh, wala fay ñenn ñi nga xam ne di amuñu salaire te di fa liggéey wala tey ca entretien ba yaa xam waaye direction hôpital ba wala centre de santé ba nga ko daan def muy ab enveloppe léegi tey nga nekk nga gis ragalkat boo génnee àdduna loola dakk nga am ci say kër yoo xam ne da nga koo féetale loola ne def naa ko waqfu lillaahi lu cay génn na dem foofa loolu mooy ba tey ci xeeti waqfu alaam la mooy daal boo ko doon tëgg da ngay wax ne moog lee ñoo yem mooy lu baax la nga doon def parce que wax waqf booy delloo ci ci gannaaw bi mooy objectif bi muy mooy maqasidul wax fii mooy lan mooy lu baax li nga doon def tam man ko nga fexe ba boo génnee àdduna it loola di continuer di wéy yaa xam nag li nga doon def ci famille bi nga ko doon def di ma ko misaale wala ci ñëpp nga ko doon def loola itam ni ma waxee woon lii fokk nga tax diit maanaam fa mu jëm tey muy jiha ba tey bu dee fii ci biir kii bi su la neexee ci ni ma ko misaale nga ne si Moustapha man yow yaa xam man daal weer wu dee man warlu naa un million boobu man danaa ko dugal fii yow nag yaa géré yaa xam nag ci facture courant ba lay jëm moo xam ci nettoiement bi moo xam ci motivation ñi fiy nekk la loolu mën nga ko def man ngaa waxit ne si usta man kat courant bi laa jël wala man kat ñi fiy nekk laa jël seen salaire loolu bu baa boobaa kenn sañu koo jël dugal fenn fudul foofu boo préciser naka noonu bu dee ci dëkk bi itam bu dee ci masaalix yu yaatu yi nga xam ne yow yoonu murit nga defal waqf benn am nga sañ-sañ ne yoonu murit laa ko defal waaye man établissement sanitaire yi nekk ci yoonu murit laa ko defal d'une manière générale waaye particulièrement Touba kon bu baa rek ñooy bénéficier waqf bi Touba ñooy bénéficier waqf bi su la neexee nga wax ne tu mais Touba ca fan est dangay que da ngay bi mu jëm bu nekk ci daaree alquran yi nekk Touba wala nga ne daaree xam-xam yuy majalis yi nekk Touba nga xam ne ña fay jàngale fayeku ñu bokk nag daaree internat yi ñuy fayeku wala daaray xam-xam wala daaray alxuraan yi nekk tubaa te nga fay jàngale ñoom fayikuñu dañuy jàngale ngir yàlla foofu laa ko jëmee walla nga ne ci jàkka yi wala ci jumaa yi muy personnel ba fa nekk wala nga ne ci barabu fajukaay yi comme ni ma ko waxee woon bu dee ci biir tubaa loolu la loolu mooy yi nga xam ne eh, da nga tax di barab bi waaye da nga tax di diya yi nga xam ne ci lay jëm léeg-léeg nag nga def li gën a noppale mooy li nga xam ne bi islaam doon am comme daal askan wi moo ko moom nga jël ki ki nga xam ne mooy kilifa askan wi jox ko ayee ko nag mooy tey lii wax fu la ci yoon wi nga koy def waaye Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekk moom nga koy jox ci loxoom ne ko fu am la mais ci jullit yi la jëm moom nag mooy xool par rapport ak lan moo nekk priorité muy waxtu wu ci jotee bu nekk tey comme jullit yépp a ko moom bamba jëpp a ko moom mooy bu ci jotee moom mooy xool lan moo gën a jam ci loo xam ne mooy priorité bu bee mën na koo jëme ci fii bu bee mën na ko jëme feneen kooku mooy boo xam ne mutlaq la nga xam ne tey xëyduwoo ko ci fenn da nga jox ne ko lii ko moom comme mooy seet nag lu jamono laaj ak moment boobu ñëwee laaj mu tasaru boobu mooy li nga xam ne mooy waqf la am kon loolu ci gàttal te mel na ni kon eh, leeral nañu ñaari xeeti waqf yëpp ak benn bu ci nekk itam eh, ci biiram eh, ya ca ya amaat waaw ya ca amaat ci boo xam ne bu xayyat bi nga xam ne dañ koo tënk ci ab jiha ak ay nit ak bi nga xam ne dafa nekk mott la ak bi nga xam ne danga nga ko da ko da ko da nga ko bàyyee rek ki ko yor moom mu xool fan la koy dugal kon muy loo xam ne tey gis ngeen tey maanaa solos waqf kon war ngeen ko mën a xam ci maanaam ni mu géttee li ñu tuddee asaka ak sarax bu mel ni boobu ñu wax ndax e fu fu dund waaje yam rek mu yam fa te waaje kat pourtant bàyyi na fi ay milliards yoo xam ne tey mën na cee liggéeyal yàlla liggéey ba di ko fekk ba yowmal am da ca taxawu am réewam da ca taxawu ay bokkam di ci taxawu aw askanam muy loo xam ne rek malheureusement dañ ko réere bokk na ci li nga xam ne lu yàgg la woon xam ngeen ni ci madinatu munawwara Abu Ubayda moo njëkk euh, bokk ci njëkk a def waqfu ab toolam la woon moom tool la woon boo xam ne tàndarma ak ak beñ beññ rek ca nekk ba fees dell mu wax ne moom def na ko fu pour mboolem waqfu am la boo xam ne mboolem koo xam ne tey ku ñorlewut dara ku dem ba am problème bu dugg yépp la seetal lu mel noonu tool boo xam ne day meññ tabaar fa kàll tàndarma jël lépp ay ay ay ay ay dàmbay tàndarma ñi am lu mel noona am luñ mën a lekk bokkuñu jël waaye tey képp koo xam ne tey e dem ngaa dem a dem ba tey fu tey xëy na bu fekkee da ngaa amoon tool sa tool dafa gooy ñor la liggéey ci wàllu commerce sa liggéey na wala ngay koo xam ne sax dangay koo xam ne ku ku ku ku lompoñ nga mënoo liggéey di ko ak laa ko dal ak yooyee te mënoo ñàkk kii léegi tey ca waqfu boobee tey muy tooli tàndarma yooyee tey tabaar fa kàlla tey mu ni ñu ne jox na ko ñooñee bu ko defee baytul maal nag moo koy gérer seet ñooñee mu ko jox bu tool bi ñoree nan lañ leen koy séddalee moo xam dañuy jël seen wàll jaay ko faj seen soxla yi mënta ñàkk wala dañ leen wala dañ koy jël jëfandikoo ko comme ab dund waaye tool la boo xam ne da koy jël ne fuqaraul madinatil munawwara ñoom la ko jox kon joxu ko ci jàkk jox ko ay fuqaraul la ko jox ñu gérer ko nag di seet nag kuy atte bi daje ci yow e, muy wasfu boobu daje ci yow ñu jox la ko naka noonu Seydina Ousmane ibnul Affan gis nga teenam ba moom itam e, moom it jënd na ab teen boo xam ne daf ko def waqfu lillaahi nga xam ne pour jullit yee yépp ak ña dëkk euh, kooku waqfu am la boo xam ne waa Madina gépp fa tabaarakallaahu ñoo ñoo ñoo ñoo ciy jariñu ndax fu eh, dafa nekk loo xam ne mën naa nekk eh, loo xam ne lii koy wutale ak sarax euh, ba tey ak ak ak ak di koy wutale surtout ak azaka eh, mooy waqfu même ku dul ab jullit mën na caa bénéficié wu bu dee azaka nag ab jullit rek nga koy sañ xam nga léegi tey ki nga xam ne tey euh, dafa bibliothèque bii tey nga ay chercheur am na ay ay chercheur ñoo xam ne dañuy gëstu ci biir yoonu murit ñoo xam ne duñu ay jullit mu ñëwee mën nañoo ñëw laaj ban téere seet téere yi ñu soxla kii ci naka noona lu mel ni ab teen wala forage boo xam ne da koo gas barab def ko muy wax ko léegi jur géeg jur jullit yéeg jur jullit yéeg ak jullit yéeg jur jur ñëpp na am ab teen amul amul amul amul amul kii maanaam eh, képp koo xam ne ku ku ko soxlawoo rek lool la te eh, eh, alquran daf koo indi bu ñu wax jéeri sil xorbe wala jéeri jund bi jéeri jund bi maanaam lu bari ci mu fassiroon yi dañ ko firee ki nga xam ne sa dëkkandoo la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nekkee madinatul munawara ah gis nga ko parce que alquran moo wax la laa yanhaakumullahu ani lazina lam yuqaatilukum fi diini wa lam yuxrijukum min diyaarikum an tabarruum wa tuqsitu ilayhim an tabarruum ta gis nga albirru laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala almasriqi walmaghribi walakin albirra man amana billahi wal yawmil axiri wal malaikati wal kitaabi wa nabiina wa atal maala ala xubbihi dawil xurba wal yataama wal masakin wabni sabili wa sailin wa fi riqab xoola toutes les catégories sociales yi nga xam ne tey mën nañoo bénéficier woo ci waqf muy beneen argument boo xam ne dafay dolliku ca bu njëkk ba waaye dafa indi catégorie yi nga xam ne mën nañoo bénéficier woo ba tey ci waqf mu di faqir ak miskin muy ñaar ñoo xam ne tey mooy catégorie bi ma njëkk a wax la leen war ci warigar yooyu ma li mën ci dëkkuwaay dund am kodd mënuñu ko wala lañ ci am doyut pour def ko mooy ñaari catégorie yooyu ak koo xam ne tey e, dafa dem tukki gis ngeen ko fan yii li liñ ci wax ñi takk ñi dem ñi tukki woon fan yi gis ngeen ni ni leen état. xam nga tey am na ñu tukki woon. Eh, feebar bi bloqué leen foofa lañ yoreen lépp jeex na pourtant ay xëy na opérateur économique ay commerçant lañ yoo xam ne sax ñoom ñàkkuñu am nañ xaalis fii mais fee ñu nekk tubaranke dal na leen fa kon ñooñu seen bopp tey dañ leen a war a dimbale bañ mën a dellu siwaat ñooñu al l'islam daf leen a prévoir ci baytil maal ak lépp loo xam ne lu dañuy jox ci yàlla yàlla pour ñu wutal leen dimbale leen diir bañ fay nekk eh, ci seen dund ak seen seen seen seen lu ñuy fayee Eh, hôtel ba ñu nekk wala barab ba ñu nekk ndax lañ yóbbu jeex na muy wëpp ni sa biir wasaa ilit ak ñi nga xam ne tey eh, mooy mooy ñi nga xam ne dañoo dem nag ba eh, wax dëgg yàlla muy yàlla ñi nga xam ne tey dañoo dem ba la war ci nun ci fekk leen fa ñu nekk gëstu seeni mbir jox leen defuñu ko bañ jug nag maanaat di dem fa ñuy séddalee wala fa ñu fa ñu lu baax ñay def lu baax di joxee lu baax dem gis leen seen soxla ñooñu ñëpp itam e dañ leen a war a e, dimbali ci loolu nga gis ne ala ala xub dawa kooku dafa nekkaat beneen caractère boo xam ne dafa ñëwaat ci wax ko parce que sarax sarax sa ñu ca loola xam nga sarax e, bu dee ci wax moom li ci gën a bari mooy sa kay jub alal muy la gën ci sa alal ngay joxe kër gu baax bâtiment bu rëy bu rafet lool wala tey loo xam ne da ko koo da nga koo da koo lu mel noonu ab tool boo xam ne tey tabaar fa kàll nam war a mel népp mel na la kon te xëy sa sa xëy jib alal nga am loo jël jox ko yàlla bu dee sarax nag sa duñu ca lool li ci gën a bari sax ah ñaare eh, xëy na la nga xam ne tey du seen xëy alal wala am ci joo xam ne sax seen soxla bëreetu ca ñaare bu dee saraxe ñaare ca loolu la ñuy gën a faral a jëmale sa sarax e muy sarax boo xam ne suñu borom subhaanahu e man moom da koy nangu bu baax a baax ndax nit ki mën naa jël loo xam ne du xeej jub alalam wala du lam gën a bëgg ci alalam wala du loo xam ne sax xëy na itteem bëreetu ca waaye teewul nag mu nekk lu am njariñ amal njariñ kam koy jox bu baax ci misaal kenn ku nekk ci nun ñii fa tabaarakallaahu am nga ay ay yére sa yére yi nga sol mën ngaa dem dëkk bu yàgg yàlla baaxee la nga nga politique bi ñëw nga daloo am say yére yu bees nga wax ne kat sama yére bi ma solan démb wala bëkk démb kat comme am nga koo nekkal fii ci biir koñ bi koo xam ne bu ñu julli ji lu mu julli sa yére bu boobee nga paase ko bam defa suut ko jox ko ko xam nga kooka moom kooka tabaar fa kàll yow par rapport ak yow mi nga xam ne am nga yére yu bees yu doy yow lee tey sa ittee bëreetut ndax am nga lu ko gën waaye moom mi nga ko jox moom tey loola moo gën lu mu fa fekk tey te pourtant mais bu dee nag ci wàll wàllu fu moom ñaare lañ gën a taamu wa euh, mooy lan taanal biro attaatun fi xawmi ma tuhibbuuna foofu lay dugg mooy li nga gën a taamu ndax comme dafay war a nekk di yàgg di continuer daa war a nekk lu baax lu nekk ci état bu baax waaye wërta nekk loo xam ne kër gu kër goo xam ne tey kër gu màggat la goo xam ne tey maanaam boo ko defee waqfu bala ngaa def daanaka ñaari at ci kaw suuf kër ga daanu wala mu yàqu-yàquwaay boo xam ne lu ko war a mën a defaraat du fa am ba lam daan génne dutu ko mën a te génne waxuñu ko waqfu toujours dafa war a nekk loo xam ne la gën ca say say kii muy kër gu goo xam ne ay at da ko mën a am waaye boo fekkee kër gu màggat goo xam ne ma ngay waaj daanu wala baaxul boo ko waqfoo du kii donc yooyu yëpp kon dafa nekk loo xam ne eh, kon maanaam lu baax la war a doon lu sell la war doon waaye sart yi nga xam ne eh, moom lañ ci waxanit eh, dañ ko ca war a bind bu ko defee kon muy loolu rek daanaka mën nañoo wax ne mooy li ñu war a na leeral yaakaar naa sëñ Mohamed eh, ci wax fu leneen li ci des bu fekkee dafa amaat du mais solo si moom xam nañu ko wax naa leen ko tey am na koo xam ne tey ndeysaan seede lu baax la ku ku mbokk mu baax moo xam ne tey ku ko tudd fii rek ñëpp xam ko muy alaji Abdou Karim Fall dafay ku jafe koo xam ne nit ki bala bala koo ko xam rek dafa dafa génn àdduna et dafa am benn bis boo xam ne dañ koy amal ci ndakaaru man ak sëriñ Xaadim Lo ñoom muy bis bu ñuy séddale asaka ak lu baax dañoo am association buy dajale ay asaka di ko jël di ko séddale ñi ko yeyoo am at moo xam ne nag dañ koo tuddee Alaaji Abdou Karim Fall ñaari duñ ko tuddee li gën a bari kuy dund mu mel ni dañuy am lu bees luñ bëgg mooy ku nekkan di def lu baax lañ koy duppee eh, ku ñuy wax eh, Amadou Batoor Diop ancien ministre ñëw fa dañ ko invité moom it mu ñëw xamuñu woon ne sax nag xam na eh, Abdou Karim Fall mu ñëw nag di seede ci moom mu ne daf ko woo benn bis muy xaritam benn bis ne ko laykat man Abdou Karim ne ko euh, Abadou Pato mu naa ah, ma ne ko xam nga man ragaluma dee mu ne ko xam nga lan laa ragal mooy génn àdduna lii ma yàlla jox ci tiraanga ma dajalee ak ma daje ak sama borom mu layoo ak man ca faa ca na def lu baax ak ñaa ca na defal lu baax defuma ko ca te duma am aw lay loolu rek laaj la ko waxee ne ko ah léegi nag moo tax dama bëgg e sëriñ Abdul Ahad dafa sori ci man lool féete ba foo xam ne kenn féetewu ma foofu léegi nag kon lii ma am lépp yàlla nga ko jaarale ci barkeem ma bëgg nag taxawal waqfu boo xam ne man ak si Abdou Lahad laa ci yéene damay jël nangami action ne lii si Abdou laa ko defal lii sama bopp muy taxaw wutu ci foofu nee na ma bis sàngam na nga ñëw ne damaa waaru kerew ne ma woo bëtt doom ji ñu ñëw ne bâtiment ñu génne titre foncier yi ne dama mujj man ma tiit hmm. nangami titre foncier yoo xam ne ci kër yoo xam ne lépp mu ne ko nañ ko def ci waq bi nga xam ne la cay génne lépp tey ci bunt yu mel nii lañ koy def pour yool ba di leen fa fekk pour wax la euh, nit ñi nit ñi ñu ñu bare mais ñu defut nii moom mën naa ñu ko ëppalal ay milliards seen lu baax lañ doon def fa la yem kon sëriñ Mohamed waqfu dafa nekk loo xam ne dañ cee war a soññi jullit yi parce que Sénégal ñu baree bari ñu bëgg def lu baax bari nañ ñu koy def lu baax bari nañ mais ku ci génn àdduna mbir ma yem foofu ngir fexe ba loolu di am continuité nag nañu fexe ba soññi ci nit ñi lu tuuti tuuti nga def ko muy waqfu lu baax la nga doon def boo fi jógee mu continuer di la ci wutu wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu macha allah waxtaan wax dëgg yàlla bettul kenn ndax ki koy def suñ xam la ci yii leer na jot na mat na wax dëgg yàlla lu waay gàtt ab dégg-dégg dana xam dana dana dana xam jubluwaay yi ak li mu doon wax ñu ko ci sant bu baax di ko ci gërëm di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala mu gën ko fay yàggal bàyyi ko fi may ko kàttan ak wér ak yéene yi nga xam ne am na ko lépp ci lislaam bi sunu borom may ko kàttan mu àggale ko bàkki sëñ Tuubaa xam naa kon dañuy tënk rek li nga xamante jot na ko fee wax ndax ñu ngi may siñaale ne ma dafa mel ni laaj xaw nañoo bari buñ toppee waxtaan yi dafa mel ni ci gàttal sëriñ Xaadim dafa tàmbalee ci waxtaan wi lan mooy waqf leeral maanaa bi wax na it avant muy dugg ci loolu lan moo war mu kallaf def na benn tamhid bu am solo avant muy dugg mu kallaf mooy koo xam ne sunu borom da koo togg jëf xam ne léegi mat na li ñëpp mat mooy li ko war ci boppam ginnaaw bu gëmee yàlla ak yooyu yëpp li ko war ci jëmmi boppam mooy fexe ba am lu mu lekk fexe ba am lu mu naan fexe ba fu mu dëkk fexe ba am nu muy yore ak njabootam fexe ba am nu muy dimbalee ay waajuram su fekkee ne dem nañ ba mënatuñ loolu leeral na ko mu leeral foofu it ne kooku bu fekkee dem na ba mënut loolu kooku la ñu tuddee alfaqir mooy koo xamante ni dafa ñàkk koo xam ne mënut yor boppam mënut a yor lu mu joxee dépense mënut a lu mu fajoo mënut a yor lu mu joxee ay doomam ñu dem jàngi école kooku la ñu tuddee alfaqiir mu ne faqir boobu nag metti gu mu metti tax na ba dem ba lislaam di ko nuroo rek al kufru mu ci xadis ngir metti gi nga faqaru li mën a def ci doomu aadama mooy mën naa dem ba yóbbu nit ki ci mu weddi yàlla leneen ci ñi nga xamante ni sax dañuy dem baag ci naan yàlla day man waaye séddaleem day te muy baat bu oyof te diis nee na kon loolu la muy tegtale mooy ñàkk dafa metti ndax dana yóbbu nit ci dem ba mën a weddi yàlla mu jógee ci loolu nag ne comme l'islam dafa bëgg ñëpp ci paix dund ci ak tawazun al ijtimaai équilibre am ci social société bi l'islam daal di créer ay aliyaat mooy ay jumtukaay yoo xamante ne nii dana tax ba ñi ñëpp danañ dund ci jàmm ñëpp danañ am luñ lekk ñëpp danañ am luñ naan ci loolu la duggee ci aliyaat yooyu lu ñuy wax azakaat bokk na ci muy joxe azaka ak saraxe ak yi mu doon tere tey mooy alwaqf bi jógee ci loolu nag lañuy leeral lan mooy différence entre lan mooy différence bayna al waqf wa sadaqa wa al wa zakat mu xamal lañu ne al zakatu moom farata la joo xamante ni dafa war nit ki bu sarti ya matee mooy su fekkee ne am na koom mi lim koy génnee ba pare su fekkee ne at mi mat na mooy tamaamu xawlin wa tamaamu nisaab ñaar yooyu il faut mu am ci muy soog a mat loolu mooy zakat moom farata la obligation la ci nit ki mu def ko bu fekkee am na sart yi dajale ci moom mooy nag bu fekkee ne saraxe la moom sartuñ ci nit ki euh, du farata ci moom da koy neex rek du koy neex moom mën naa bañ a am sax som bi bu ko neexee ñaar fukki dërëm yi mu yor ci poosam mu génnee juróom yi joxe bu ko joxe it mën naa seet ku ko neex mu jox ko ko boo bokkut ak boo bokkut ak zakat zakat moom dafa am ñu wax ne la ñoom war a jox te it dafa am dafa nekk farata ci yow kee nag moom du farata coobarewu la rek da lay neex nga def ko mu ñàkk laa neex nga bañ ko def mu ñëw ci beneen tomb bi nag muy euh, mooy waqf bi nga xam ne moom moo gën a yaatale nga xamante ni foofu précisé na fi ne waqf moom dafa mel ni mooy li gën a yaatu ñoom ñoo ñëpp ndax lu ci ne ci ñaar yooyu nit ki day mel ni ci dundam la yem maanaam bu ko defee rek bu génnee àdduna rek day mel ni ay fi foofu lay yem waaye wax waqfu moom dafa nekk istimraariya mooy dafa mel ni nit ki koo xamante ne nii day dund ci àdduna bi muy dund ci àdduna nag mu xam ne dina fi jóge yàgg yàgg dina fi jóge te bëgg na bàyyi fi jëf joo xamante ne ni bu ëllëgee yowmal xiyaam dana ko fekk foo foofa mu ne mu kerye loo xamante ne nii kont boo xamante ne ni day muuf day day day yëngatu fu mu toll compte bi day dund te loolu leen rek ko mën a may mooy li ñu tuddee al waqf kon loolu mooy différence mooy fekkee ne waqf moom day am continuité moom boo fi nekkee boo fi nekkul la bu dee sadaxa boo fi jógee la mën naa am yool bi sax dana àgg waaye nag jëf ji moom mën naa am dootul continuer ndax xaalis bi ngay joxe yow boo fi nekkut rek joxeetoo ko li ngay sadaxa it boo ko joxeetu rek nekkatoo fi waaye nag bàyyi fi loo xamante ni day mel ni yaa ngi fi loolu leen rek la ko mënal mooy al waqf foofu nag ci ci la duggee ci nag ne anwaawul waqf maanaam xeeti waqf yi am mu ne am na waqf boo xam ne al waqful ahli awi mooy waqfu boo xam ne da nga koy jagleel rek sag njaboot waqfu boo xam ne foofu la jëm mooy ne da ngaa tànn ñenn ci sag njaboot ne daal su ma génnee àdduna bàyyi naa fi immeuble boo xamante ne nii xëy na la muy génnee ca xaalis toll na ci un million nga ne un million boobu dañoo ko joxal ñenn ci sama njaboot waaye nag loolu day am at mooy boo ko jaglelee sag njaboot ba pare da ngay wax ñan ci njaboot ñoom nga ko jagleel ndax say doom kase la ndax say baay tax kase la ndax say tànt kase la il faut nga préciser ne ñii ñoo tax wax fi bi jug bu loolu leeree ba pare it da ngay leeralaat ne ndax ne wax waqf bi dafa éternel ndax loo xam ne day continuer la wala dafa am fi muy ndax waqf bi li nga leen di jox fukki at yi bu paasee rek léegi ñoom jeex na wala boog dafay nekk ba faw ñaar yooyu il faut nga préciser ko kon ñaar yooyu fokk mu leer ci li ngay waqf ba beneen beneen naw bi mu indiwaat ci Euh, anwaawul waqf mooy al waqful ijtimaai boobu dafa gën a yaatu mooy wax fu boo xam ne yow jagleeloo ko rek sag njaboot waaye da nga koo jableel rek jullit ñëpp wala nit ñëpp muy ni ci misaal lu mel ni ki tabax jumaa wala tabax lu mel ni hôpital wala lu mel ni teen wala yu mel noonu nga xamante ni yow jagleeloo ko kenn ci sag njaboot da ko koo jagleel ñëpp loolu la ñuy wax al waqfu al ijtimaai loolu it précision mu joxe fee day ñëwaat da nga ko def ngir mu nekk benn mudda boo xam benn temps bu bu déterminer boo xam ne dafa am fu muy yem ndax boo amee fukki fukki at loolu day daal di jeex alal ji day daal di dellusiwaat ci yow wala déedéet danga nga ko faa bàyyi rek da nga ko faa bàyyi rek muy continuer la maa fee ak alal jaa nga fa rek te jëmi jëmit day continuer loolu it bu fekkee ne leer na loolu it day daal di nekk lu am solo ci ki koy def mooy sart yi nga xam ne bu fekkee wax bi da nga bëgg mu am il faut nga leeral ne yow lii ci ñemi jëm ña muy jëm day am temps bu muy jëm ci ñoom ñaari at ñetti at ñeenti at wala déet day continuer loolu il faut nga leeral ko boo ko leeralee ci la wax fi mën a leer dama tax ndax dañu wax ci waqfu sax al waqful munqati loolu bokkul ci sart al waqf mooy il faut mu nekk loo xamante ni day continuer mu nekk waxtaan woo mooy maqaasidul waqf fii wax na ko mooy jubluwaay yi lan moo tax wax wax fu ñu koy def mooy dafa war a am al istimraar yi ni mu ko tuddee léegi mooy continuité say jëf indi ci ay xadis xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne doomu aadama bu fi bàyyi ko mbooleem ay jëfam dañuy arrêté ba mu des ñett jëf mu tuj ci doom ju baax ak xam-xam boo xamante ne nii boroom da ko fee bàyyi ak lu mel ni lii mu doon tudd léegi jëf joo xamante ni jëf ju am tabax école wala tabax lu mel ni ki hôpital wala ay teen wala yu mel ni yoo xam ne ni da ko da koy jariñoo mu nekk waxtaan woo xamante ne ni jaamiun maania wax dëgg yàlla mbooleem ji fi taw ñëpp ku ci nekk jàngaan nga ci ay leçons yu bees yaakaar na ñu topp ñëpp noonu lañ ci demee ñu lay ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram di la ñaanal sunu borom subhaanahu gën la fee bàyyi bu baax baax ñu bàyyi koon sëñ bi mu indi question yi nga xam ne am na ko ah jërë ngeen jëf euh, suñu xaadim si waxtaanu am na ngi indil ak suñ Mouhamed Yatara ci introduction bu mu def kon xam naa dañuy profité ak euh, dañuy profité ci waxtu wi rek euh, jukki yenn laaj rek mbokk mi day laaj lan moo wóotalee baytil maal ak waqf ok xam nga baytul maal maanaam euh, mooy barab bi nga xam ne ca la dajale alali jullit yi mooy li ñu tëdd trésor général ci état islamique mooy mboolem alal yi nga xam ne mooy alali jullit yi moo xam azakaya ah moo xam eh, li nga xam ne eh, eh, mooy li ñu jële ci xare yi ak lépp loo xam ne mooy alali jullit yi ci baytul maal lañ koy dugal léegi nag waqfu comme niñ ko xamee et li gën a bari lu mel nii euh, ab tool lay nekk xam nga baytul maal moom barab la boo xam ne fa ñuy dajale alal yi nga xam ne moom la ñuy dajale moo xam ak kii léegi nag bu dee lu mel nii euh, waqfu nga xam ne ab benn mu nekk ab tool wala mu nekk ab bâtiment ci biir autorité ki yor baytul maal lay nekk parce que baytil maal et xilaafa al amma muy muy muy muy xalifa jullit yi maanaam moo koy gérer parce que alali jullit yee te fu ci alali jullit yi la bokk kon ba tey e, e, e, ci biir baytil maal moo koy moo koy baytil maal bi moo koy gérer maanaam autorité bi yor baytil maal moo koy gérer waaye li gën a bari du nekk ci biir baytil maal ba parce que baytil maal li muy am mooy barab la boo xam ne tey eh, li li ñuy tuddee fa la ñuy dajale mboolem alali jullit yi nga xam ne ñoo ko moom yee ci jëm ca sarax yee ci jëm ci lu mel ni eh, wax fa nag comme lu mel ni kër la goog day jënd fee lay nekk ab tool waaye teewul eh ci benn àtte bi la parce que ci biir eh, autorité ki yor baytul maal lay nekk ci kaw bu fekkee dafa nekk comme ni ma ko leerale léegi maanaam mi ngi dépendal nag ci kaw saaru waqfu boobu parce que bu dee waqfu boo xam ne waqful ahli ahli la kooku kooku yoonu baytil maal eh, eh, eh, nekku ca njaboot ga nga xam ne ñoo ko moom ñoo ko mais bu dee waqf wax xam ne waqful am la nga xam ne moom jullit yi ñoo ko moom kon ki nga xam ne moo géré mooy kilifa jullit yi moo koy moo koy moo moo koy géré kilifa jullit yi moo géré it baytul maal tey bu fekkee loo jox tey Touba la tey nga jox ko xalif général des mourides xam nga xalifa général des mourides am na compte boo xam ne moo yore moo nekk maanaam baytul maay mooy compte Cheikh Amadou Bamba mais ko xaalis dañ fay dugal mais li nga xam ne ay kër la yoo xam ne dañ koy jox sëriñ bi xam nga nekkul ci biir lu ñuy dugal ci biir compte rek ci biir atte baytul maal la ndax ci alal yi nga xam ne eh, eh, ci jullit yi la ñuy jëm te autorité bi moo koy seeree kon loolu mooy mooy mooy mooy li ñu wute bu fekkee ne xeetu waqf bi nga xam ne waqful ahli yi la moom kooku moom famille boobaa ko yor kooku du dugg ci biir baytul maal waaw euh, yi ba ñoo koy gérer mais bu dee nag waqful am la boo xam ne moom état islamique bi eh, moo ko moom kon bu boobaa état islamique bi ni mu gérer baytul maal na lay gérer lool parce que day dugg ci biir alali jullit yi jullit yi parce que baytul maal mooy lañ fa dajale ci alali jullit yi muy azaka sarax ak waqf bi nga xam ne tey amagul ci moment boobee ñu ko fay dajale ñu ko ñu ñu ko jariñoon wala ñu dajale ko fa as ngir su gàtt en attendant ñu séddale ko eh, ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko moom Euh, jërëjëf sëñ Xaadim ci tontu bu am solo boobu dañoo ci ñaareelu laaj bi rek mu ne ndax yéefar bi faatu bàyyi fi alal ndax alal juutu mën nañ ko def waqf waa xam nga loolu moom xam nga ab jullit ab yéefar moom xam nga loola <laughs> ñun ci lislaam eh, la ñuy la ñuy waxtaanee maanaam jullit eh, maanaa togguñu nu ñi nekk ci yeneen diine maanaam la ñu am ak nañ koy defee loolu ba bokkut ci eh, li nga xam ne moom lañ ñu togg ñu di ko waxtaan ndax kooka eh, eh, jotewuñu xanaa ak dëkk rek moo ñu boole waaye nag jotewuñu diine ndax ñun li ñuy wax ci biir diine la kon tekkul ci diine waaye teewut nag e ñoom lu bare bari ci ñoom dañ koy def seulement nag li leen wutale ñun ci cadre diine lañ koy def yaakaar ca payu yàlla ñoom nag dañ koy dugal ci action sociale li ñuy def daanaka lu bare bari ci milliardaires yi am ki ñoom it am nañ loo xam ne mais du tudd wax wax na neen lañ koy tuddee mooy action humanitaire lay doon yoo xam ne tey ñoo xam ne am na ñoo xam ne sax dañuy am même ay doom yu leen war a doon waaye dañuy bind na ñoom seen alal ji tey may nañ ko nangam may nañ ko université sàngam wala may nañ ko dàngam dañ koy def comme ñu ko defee mais li leen wutale ak ñun ñun ci cadre islam lañ koy defee yaakaar ci bu yàlla ñoom nag yaakaaruñ ca dara lu may mbirum àdduna la comme ni bokkuñu ak ñoom ab atte kon waxtaan wi mu ngi jublu ci jublu hmm? waaw waaw waaw waaw loolu loolu moom bu fekkee dafa yi dafa am benn maanaam organisation boo xam ne dafa daf ko dafa dafa am wala milliardaire wala benn organisation boo xam ne dafa wax ne kat moom lii daf koo jël et dimbalee ko maanaa jullit yi léegi bu boobaa autorité religieuse bi ci boppam sañ naa jël loola ba xam nga nit ki bu xasee ba moom alalam ba noppi xam nga kon léegi jullit bi moo ko moom xam nga bu ñu waxee rek ne ndax jullit bi am na sañ-sañu tey ku dul jullit jël alal joo xam ne tey dafa jëm ci biir jullit yi jox ko ko bu loolu jàllee kooku mooy laaj bu njëkk bi suñ nee waaw loolu kay am na sañ-sañu def ko ci kaw su fekkee ne alal joojee mu ko jox xool nañ ci dowaab bi di nga xam ne ci la jullit sañ jële alal ju bàyyi ko ci faneen maanaam dara loo xam ne lu dislaam bañ ñëwu ca maanaam alal joo xam ne xool nañ ko ba nga xam ne tey lenn lu taq wala lu islaam bañ nekku ca ba sarti nangu ja am ca boobaa nag bu xasee dugg ci biir eh, moomeelu jullit yi nag boobaa day daal di yor atte bi eh, bi bi alali jullit yi yor boobaa day mën a daal dugg ci biir wax waqfu ndax jubluwaay ba joxuñu ko kenn joxuñu ko kenn communauté musulmane bi lañ ko jox communauté bilatérale bi nag lépp lu mu jël bu fekkee ne lu mën a dugg ci biir àtte fu la dañ koy dugg yóbbu ca waqf bu dee loo xam ne nag ci àtte zakat ak sarax la dugg muy luñ dañ ko war a daal di séddale léegi kon dañ leen koy daal di séddale waaye bu dee lu mel ni ab bâtiment la boo xam ne tey maanaa dafa wax ne kat maanaa li cay génne bâtiment bi moom ba léegi ci sama tur la ne waaye la koy génne nag laa leen di dimbalee kon bu boobaa dafay daal di dugg ci ci ci atte boobu su fekkee jëmi bâtiment bala joxe it ne nañ ko def bu boobaa mën nañ ko daal di placer ci waqf bu xasee dugg daal ci moomeelu jullit yi imaam bi nag mooy seet ba xam fan la koy dugal est-ce que da koy placer ci waqf en tout bu ko ca bëggee placer mën na caa mën na caa placer wu bu daj bu ca sart ya dajee sarti waqf su fekkee da koy séddale it fi saasa euh, mu mu mu séddale ko waaw. jërëjëf sëñ xaarim ci tontu bu solo boobu. kii wootee day laaj ndax intérêt banque mën naa nekk waqf. Hmm? ndax intérêt banque mën naa nekk waqf. maanaam intérêt intérêt banque xam nga xam nga xam nga waqfu dañoo waxam ni muy demee xam nga waqfu du doon ab xam nga intérêt euh, intérêt banque eh, xam nga euh, wax nañu benn xeet ci xeeti eh, waqf yi ne action boo xam ne intérêt banque dugal nañ ko ci bi ñuy wax ci njëlbeen gi muy tey. bu fekkee ne compte bi ñu ubbi compte bi ñu ubbi dañ koo ubbi spécial ngir mu nekk waqf xam nga bi ma lay tuddal xeet yi mën a nekk waqf tuddal naa la ab bâtiment wala immeuble boo xam ne danga ko jënd danga nga koo am ne la cay génn ci ci ci location na nekk waqf wala ab tool nee naa lay dit kii mën naa am benn action ci benn société wala mu ubbi benn compte banque ci banque istismar waaye nag boobaa day nekk banque boo xam ne ci muamalat islam yi lay def banque bi nga xam ne maanaay banque islam yi lay def muamalat islam yi nga ubbi ci ak compte su la neexee nga ne nga xam ne ko maanaam banque ba banque ba mustasbir la day da investissement la boo xam ne day liggéey mu daara ba ci xaalis muy am bénéfice kon man ngaa wax ne kat compte bii def naa ko wax fu muy lu ca génn ci bénéfice lépp maanaam na dem ci barab sàngam loolu loolu mën naa nekk waaw waaw ah waaw waaw moo xam nga moo tax ma wax la ne bu fekkee ne maanaa dafay mel ni sunu waaw moo tax ma da la wax xam nga wax fu moom waaw waaw xam nga léegi xam nga léegi eh, waaw xam nga léegi <laughs> maa ngi la doon leeral ci ci wàllu ko li wutale sarax ak waqf parce que waqf dafa nekk loo xam ne euh, euh, dafay war am continuité léegi bu fekkee ne ñun suñ compte banque yi ñu bancaire yi ñu yor tey nga xam ne eh, da nga koo ubbi mais xaalis ba ci nekk yow yaa ko moom la koy génn ci bénéfice moom war a jëm ci say soxla loola bu dee la cay génn ci bénéfice ci lu mel noonu mënta mënta mënta euh, day wuute day wuute ak compte bi nga xam ne uniquement waqf fa tax nga def ko waaw bu dee compte yi ni suñu soxla nga xam ne compte bancaire yi nga xam ne moom ngay am nga wax ne ndax tax bu ma ko amee intérêt banque déet mu ngi dàppaandar ci ndax compte ba ba nga koy ubbi danga nga caa yéenewul mu nekk waqf bu fekkee ne compte spécial la boo xam ne da nga koy yéene mu mu nekk waqf nga bind ko kooka boobu waa kay la cay génne ci intérêt ba mooy lay jëm ci waqf du jëmi capital ba ci bopp mais la capital ba di jur kooku moom ak bâtiment bi nga bi nga bi nga moom ak tool bi ñooyam mooy la cay génn mooy dem ci waqf waaye dafay nekk nag mu nekk compte boo xam ne da koo génne nii dama ko def waqfu lillahi subhanahu wa taala nga xam ne la ca nekk ak ak lépp waqf la waaw loolu bu boobaa mën naa nekk muy compte boo xam ne da nga ko ubbi mu nekk wax kooku mooy bâtiment boo jënd ne la cay génn ci location na nekk wax ak tool boo am ne da cay génn ci meññeet na nekk wax ko bu dee compte spécial boo xam ne danga nga ko ubbi ne naa la naari yi yu bare bari dañ koy def ci pays islam yi yoo xam ne dañuy ubbi compte boo xam ne dañuy wax ne lii kat waqf lillaahi la muy jëmi compte bi mooy la cay génne dama koy delloo ci wàllu yàlla nga xam ne boo boo génneen àdduna yi say doom duñ sañ a dem waq ba waq waq la ca nekk wala ñu bloqué compte ba ndax compte bi da nga koo jagle loolu loolu académie yi mu mujj yëpp eh, jégal di wane nañ ne mën naa mën naa yor atteb dañ koy xiyaas ci bâtiment bi nga jënd parce que lépp muy eh, day dugg ci sensu waqf muy loo xam ne tey dafiy nekk di jur njariñ njariñ lay dellu ci lu baax la nga doon def loolu nag mën naa nekk ab tool mën naa nekk kër mën naa nekk it eh, ab action boo am ci biir ab société jënd ko action ba ne la cay génn ci bénéfice bu boobaa na dem ci loolu naka noonu bu dee compte koo xam ne compte istismar la maanaam ci istismar surtout nag mu nekk eh, eh, loo xam ne ci mu daara lu mel ni mu daara ba danga xam ne eh, conte banque islamique la boo xam ne mu amalaat islamique la ñuy def loola bu baa kii ndax itam l'islam dañuy bëgg lépp looy def lu ne na nekk loo xam ne lu sell la loo xam ne lu dëppoo ak dawaa bi di islam jërëjëf sëñ Xaadim ci tontu bu am solo boobu hmm. dañuy ñëw rek bi hmm. mu koo xam ni daa am contrat six mois si digg si diggante bi entreprise bi liggéey bi taxaw ndax kooku dañ ko war a continuer fay walla déet. dañ ko. koo xam ne dafa am contrat six mois ci ci benn entreprise. waaw ah, ci diggante bi entreprise bi taxaw. waaw maanaam am fay. ndax kooku dañ ko war a fay wala déet. dañ ko war a fay. dañoo war a fay xam nga xam nga xam nga lislaam <coughs> eh, dafa leeral yooyu yëpp daf ko daf ko daf ko waajal. boo gisee tey ñuy wax mu amala yi ñu bañ ko l'islam comme nii ñu koy defee tey nga xam ne bu perte nga perte déedéet dañoo bëgg ci commencement bi muy modaara ba la islaam eh, rafet lu ànd ci mooy dañuy bëgg ci commencement bi li ngay bokk ci loo xam ne investissement lay def day génne xaalis da ngeen di dëppoo ci ay principe yi kat lii kat lépp loo xam ne maanaa am nañ ko ci bénéfice e nii lañ koy séddoo par rapport ak kenn ku nekk la nga e, participer nu toll waaye la même lu ci génn itam ci yàqu-yàqu it dañ koy séddoo mooy ni ñuy seddoo bénéfice yi ni lañuy seddoo yàqu-yàqu yi waaye kantaa nag bu am may bénéfice kët man nañ ma jox waaye bu perte amee maanaan na féete ca waa ji déedéet islam loolu lay bañ boo gisee mu amal rabo yi tey nga xam ne tey boo xasee joxe joxe joxe sa alal bénéfice bañ lay wax dañ koy fixé ci départ bi boo perte ak bu banque bi pertee wala pertut bu fi nga ko joxe pertee loolu islam daf koy bañ muy risque boobu l'islam day bëgg dès le départ mooy nan leer ngeen na ngeen dëppoo ci ne bu bénéfice amee yéen a koy séddoo ci anam sàngam mais bu bertement amee ñoo ne koy séddoo ci biir anam bu ca loola amee kon lu mel noonu am mais bu fekkee loolu amu ca ah bu boobaa loolu islaam da ko du nangu ci boppam waaw maanaam joxe joxe sa alal njël bi def dafa war a leer la ngeen dëppoo woon dafa war a leer waaw jërëjëf sëñ Xaadim ci tontu boobu parce que ni ni nga waxee yow mooy leeralul ba xam moom ci ban yan condition la joxe. la joxe maanaam maanaam. ah. ah. ah lañ jot ah ah waaw kay. loolu daal leer doon maanaam ki nga xam ne dafa nekk ci biir ab société nga wax liggéey ci lu war a mat juróom benn weer. entreprise ba daanu maanaam ñu ñu ñu ñu ñu kii ko maanaam ñu ñu ñu arrêté liggéey ba ñoom ngay laaj ndax liñ jot a liggéey dañ leen ko war a fay wala de. maanaam kii li li mu bëgg a wax xam naa dafa bëgg a wax ne maanaam situation bi ñu nekk nii. waaw maanaam. Euh, waaw waaw waxal na leer rek. école école yu école yu bëri seen dañoo taxaw. waaw. waaw. école yu bëri dañoo taxaw. waaw par exemple tey ki nga xam ne enseignant bi ñu jëloon. contrat lañ ko joxe neuf mois. waaw mbas mi ñëw ñu dekk moo xam ne kenn mënut a jàngee. waaw léegi xam kooku dañ ko war a continuer fay wala waruñ koo waaw pause bi mu taxaw bi mu ko. loolu nag pay gi bu dee ci saloo lislaam la. islam dafa wax ne wa an laysa lil insaani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura su fekkee dangaa aman contrat ak waa ji ngeen signé nga war a xëy di dem di liggéey yi donte six mois ngeen waxante woon mais yàlla andi na situation boo xam ne am na ba nga xam ne yow loolu moom bàyyikowul ci moom maanaam du sagoom moom ndax xëy na école ba tey mooy li am lu bari ci école privée yi parce que école ba lañ la doon fayee mooy ay doom yi ay parent delaw ñoo doon dajale ñu di ca fay fonctionnement euh, école ba di leen ca fay yéen ñoo ñi parents élèves yi seeni doom jàngatuñ ñoom comme ñoom fayatu kon yow itam liggéey bi nga doon def defatoo ko yaa ngi sa biir kër kon boobu waa wax dëgg yàlla te situation moo indi noonu su fekkee ne école bi am na ay damaanaat yoo xam ne signé wan na ko ak yow ne kat bu bu condition yu mel nii amee kat maanaam pour bañ laa euh, bañ bañ nga am tumaranke am naa lu ma fi teg loo xam ne kat diirub juróom-benni weer wala nangami weer loo xam ne yéen ko signé te ci biir contrat ba moom danaa la koy fay bu fekkee loolu leer na ci biir contrat ba kon même bu lii amee boo liggéeyu te ndax yéen a ko waxante woon waaye bu fekkente rek waxantewu leen wan loola mooy boo ma liggéeyalee weer ba dee. ma fay la ah yàlla dogal na situation ñëw na maanaam liggéeyu liggéeyaloo ko war yaa nga toog sa biir kër te la tee nga liggéey moom du du du du lu bàyyi ko ci moom lu jóge ca kaw yéen ñëpp la boobaa kon amuloo ko amuloo ko bor boo ko war a fay ndax wa an laysa lil insaani illa ma saa ndax liggéeyoo yaa nga xëy sa kër am yaa nga woon ci seere yarin ittee kon foofu eh, eh, ma jaamal la nag mën na fa am ci ay ci kaw bu fekkee ne dafay dafay dafay société boo xam ne tey dafa am barke am njëkk mais kooku it ci wàllu njëkk ak teraanga rek lay lay sukkandiku allahuma lu dul nag tey loolu da ngeen ko signanté woon parce que am na ay ay ay ay ay établissement yoo xam ne loolu dafay bokk ci seen mbir muy tey bu fekkee dañ laa war a fay weer wu dee et fanweeri junni ñoom dañuy jëlaale sóoraale lu mel noonu dañuy wax ne au lieu sa salaire de base fanweeri junni la mooy salaire bi nga xam ne mooy brique bi mais nag pour dañ ciy jël weer wu dee au lieu ma fay la fanweeri junni dama la ciy fay dama ciy jëy ñetti junni épargne ko ngir ëllëgati si biir su situation bu mel ni bii amee ngir nga bañ a bañ a tumuraanke man danaa continuer di la fay ñetti weer wala danaa continuer di la fay ñeenti weer loolu bu fekkee moom ngeen siñante woon kon bu boobaa bu arrêté it loolu day continuer di ko fay loolu am na am na ñu bare bari yoo xam ne noonu la ñuy def mooy pour risque yooyu nga xam ne mën naa ñëw waxtu wu nekk te waa ji xëy xëy liggéey bi arrêté na te yor na ak njaboot te liggéeyatul ah loola ñu baree bare dañ koy fagguwaale ba salaire bi nga xam ne moo nekk birit dafa am une partie bu ñu ciy jël ne la du la ko jox lépp loolu xam nga retraite yooyu ci ci lañ ko dugal caisse retraite muy dafa am loo xam ne da koy épargner foofee ba boo demee ba liggéeyatoo xam nga fay ñu la loolu liggéey mais di yaa ko moom mais di la ko faa dencalan ngir nga mën cee sukkandiku loolu it ba tey mooy atteb eh, eh, yenn ci entreprise yooyu loolu moo tax nag eh, lu ci nekk lu ne daa war a leer ca njalbeen bi waaw waaw. waaw. waaw waaw loolu. xam nga fi ne xam nga fi ne bu dee école privée fii ne yow da am jafe-jafe yow si ISPA. waaw. waaw. ne man jàngatuma. gannaaw jàngatuma. Hmm. gannaaw jàngatuma. Ah. du ma fay parent d'élève bi day wax de. man toog naa ay weer yoo xam ne jànguma kon du ma dëgg la léegi te ñoom buñ ñu moom du mën a fay. dëgg la du mën a fay maître yi. dëgg la. fi ne problème la boo xam ne kii koy laaj. mooy mooy problème bi ñuy dund mooy li ma la wax. mooy mooy mooy léegi kii ak payam mi ngi dépendre ci parent d'élève yi parent d'élève bi am na àq ci kaw ne man sama doom da ngeen ko daan jàngal weer wu dee ma fay comme jàngaletu leen ko nag jàngatut nag ah léegi mën ta fay dafay du ma fay léegi ki doon jàngale itam. bu ko demee établissement bi da ko wax ne ah man kat da daan xëy suba di ñëw di yendu ba ngoon di jàngale ma di la fay comme nag jàngaleetoo te man la tee nga jàngale man dépendre euh, ci man lu jóge ci kaw la ah kon bu boobaa léegi yow waruloo ko fay allahuma nag lu dul nag li ma wax tey te loolu ñu baree bari dañuy sóoraale lu mel nii ci biir contrat yi muy pour pour bañ koo tubaranke googu dal ko mooy yow nga nga yow ci sa biir liggéey sa gestion ci boppam nga waxtaan ak moom ne ko léegi man sa salaire brut cent cinquante mille francs laa lay fay waaye nag weer wu dee maa ngi lay jox et eh, ñaar fukki junni ak juróom benn yi ñetti junni yi yaa ko moom ci compte laa la koy bàyyil su ñu demee ba situation bu mel ni bii am man ma di jël ca loolee lu tolloo ak sa salaire di la jox su yàlla dogalee nag ñu dem a dem ba contrat bi ñu aman jeex te benn lu mel nii gaaru loola yow la fa nekkalan ma jox la ko loolu ñu signalé ko loolu dafa nekk loo xam ne ay matuwaay la yoo xam ne islam dafa bëgg ñu di ko jël mais su fekkee loolu amu ci woon li ngeen digge woon moom weer wu dee danga ko ko jox ba mat sëkk kon bu demee ba eh, lu mel ni lii am te jóge ci kaw bàyyikuwul ci moom liggéeyatul liggéeyalatul kooku amee loo ko loo koy loo koy jox waaw ndax liggéeyalatul jërëjëf euh, si Xaadim di tontu bu am solo boobu. Hmm. kii ba tey day laaj lu tax Sénégal Sénégal mënut a am baytil maal. ah baytil xam nga euh, ci état islamique lay am xam nga li ñuy tuddee trésor public xam nga trésor public alali réew mi foofa la nekk impôt ak duwaan ak lépp loo xam ne ay recette la yuy jóge jëm si ci état foofu lañ koy denc ca la ñuy fay salaire yi ca la ñuy defal tëli yi ca la tabaxal euh, hôpitaux yi ak lépp loo xam ne askan wi moo ko moom ca lañ koy def loolu bu état islamique amee moo ko géré comme nag ñun dëkkuñu ci état islamique loolu mënuñoo am lu tudd baytil maal waaye nag la tudd baytil maal mooy lu trésor public mooy baytil maal ci état yi moderne yi nga xam ne laïque lañ bu ñu demoon nag ba am nag eh, sunu. sunu sunu sunu kii mais man nañoo am nag baytil maal fii ci am na nañ maanaa ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yi am nañ baytil maal fii ci Touba maanaam bépp xalifa Sëriñ Tuubaa la tàmbali Seexal Xadim moo ko njëkk a def ba léegi am na compte boo xam ne compte Seexal Xadim la mi ngi fii xalifa bu ñëw da nga ko renouvelé muy adaayaa yeeg daayira lépp loo xam ne dañ koy joxe te mu jëm ci liggéey bi ñëpp bokk ko liñ fiy liggéey lépp ca lañ koy dugal tey képp ku am sa joxe tey université suñ suñ bii tey lépp lu fa waaye di joxe ak lu mu mën a doon lu ne ci lay dugg ñu gérer ko di ci def loolu kon ñun am nañ suñ baytil maal fii ah képp koo xam ne tey bu baytil maal aman eh, nga dugal ca sa alal tey compte Seexal Xadim bii tey muy compte xilaafa général gi nga xam ne tey liñ fiy def ci ci yoon ku bokk ci biir communauté bi bu nekk tey mën nga koo jàppee sa baytil maal parce que baytil maal du dara lu may fu ñuy dajale alal ji nga xam ne jullit yi ñoo koy dajale muy delluwaat ci askan wi waaw loolu la jërëjëf sëñ Xaadim ci tontu bu solo boobu ci sëñ Saalu Ñang la tudd nekk Europe day laaj ndax waajal nañ waqfu bu mën a taxaw université bi sëñ Muntaxa tabax tabax waaw waaw ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy waajal bu baax a baax ndax xam nga uh, yoonu murit moom xam nga yàlla dogal na e, e, fii ci senegal jàpp naa ne ñuy tudd sax waaye li ci gën a siiw ci li nu dund ñun mooy yoonu murit ci la wax fu tàmbalee Cheikh Mouhamadoul Mourtada xam ngeen ne eh, oto yi nga xam ne tey mooy service bii nga xam ne mooy societé transport bii mu aman mooy kaar yi waqfu lillaahi lañ ci doon bind mooy ay kaar la ab société la boo xam ne dañ koo créer ngir lépp lu cay bàyyi koo delluwaat ci yàlla du lu ñuy don loolu la ci sëñ bi jublu muy di école yi ak daara yi ak lépp loo xam ne lu jëm ci islaam suñ Murtala moo ko moo ko njëkk aman na it ay taalibe bu ko joxan benn immeuble foofu ci yaakaar naa ci boori Castor wala jëppal boo xam ne moom itam sëñ bi da koo jël defaat ko muy waqfu ne lépp lu ciy jóge mooy day delluwaat ci kii bi kon yoonu murit moom fa wax waqfu ñooy ñi nga xam ne ñoo ci jiitu woon euh, euh, xalaat yi nga wax insha allah euh, Eh, yu ñu yu ñu yu yu xalaat yu yu yu yu yu ñuy waxtaane la eh, eh, amuñu sañ-sañ xëy na prononcé ci ndax mbirum sëñ bee waaye daal jàpp naa ne lu ñu lu ñu lu ñuy waajal la wala lu mën a waajal la ndax même bu fekkee ne loolu euh, mën naa la wax ne daanaka sax compte bee fa nekk rek sax daanaka euh, lu lu mel noonu la ndax lu ca dem lépp ci ci ci yàlla lay dem du lu ñuy donn du lu ñuy kii waaye incha allah loolu lu mën a lu mën a nekk la jërëjëf sëñ Xaadim ci tontu bu am solo boobu. ki day laaj ndax Touba Ca Kanam li ñuy def nii ku ci dugal sa alal ndax wax fu la wala du wax. déedéet nag xam nga wax dañ koo leeralal lu lu mel noonu maanaa euh, xam nga xeeti boo gisee waxtaan wi ñu tàmbalee woon ko ci asaka ak sadaxa ak infaq fi sabilillah yooyu yëpp dafa am waqfu dafa am suura bu muy war a yor xam nga lu mel ni kii Touba ci Kanam et acte maanaam infaq fii sabilillah muy xeeti joxe-joxe yi nga xam ne moom fi saasa maanaam eh, ki koy joxe moom amul lu mu yow mi koy joxe waxuloo bu fekkante ne day tey Tuubaa ci kanam tey mën na mën na mënees na koo dénk waqfu tey bu doon loolu la laaj tey Tuubaa ci kanam xam nañ ay objectif am askan wi la fi nekkal tey mënan kenn mënan naa wax ne man kat comme man weer wu dee ma am dara lu ma dugal ci Touba ci kanam mais mën naa am suba ma génn àdduna kon nag immeuble bii jël naa ko def ko fu pour Touba ci kanam lépp lu ciy génne bu weer deel in ko mën naa nekk loolu ko naka noonu Touba ci kanam it tey eh, su ko mais mais comme ab organisation la su ko su ko su ko su ko su ko neexee mën na mënaan naa moom mën naa am la ñuy dajale la ñuy dajale ca loola mën na caa am xëy na ay ay immeuble mais jëmmi jëmmi Touba ci kanam comme li eh, li muy def lépp ay action la yoo xam ne moom du du du ñu fay dajale rek saaru lu mel ni trésor la wala lu mel ni baytimaal la boo xam ne lañ fay dajale dañ koy daal di investir ci saasa luñ dajale lu nekk war a joxe bilan ba war a joxe leer la yooyu yoru yorul caractère waqfu waaw jëmmi jëmmi warut caractère wax waaye ka cay joxe nag moom mën naa wut loo xam ne waqfu la boo xam ne bu weer dee mu dem ci Touba kanam ca kanam wala mu dem ci université bu Sëñ Muntaxa wala mu dem ci daara eh, Sëñ Moustapha Diatara wala mu ñëw ci bibliothèque bi waaw. ba tey bi foofu la jëm mu ne ndax Touba ci kanam mën nañ koo def waqf. jëmbi Touba ci kanam ci bon maanaam jëmbi Touba ci kanam xam nga eh, xam nga waqf dama la wax dafa am ay ay caractère yu muy jox xam nga Touba ci kanam. li ñuy joxe waxtu wu nekk dañoo am ñoom ay projet yoo xam ne yu ñuy def maanaam wax fu dama la wax ne la benn dafay nekk lu mel ni ab bâtiment wala lu mel ni ab tool wala jëf joo xam ne tey dafay nekk et kenn jël engagement def ko mais lee saaru mbooloo la moo xam ne mënoo taadib mënoo taadib ña fa ne mënoo xam lii ah parce que am na ci ñoo xam ne ñu fay def ñoo xam ne bokkuñu ay membre ca loola même ña ci nekk ci membre kon lu beneen forme def ci lu baax la mais bokkut wax waxtu waaw man bokkut ak waxtu mënta mënta mënta mënta mënta yor taxaw taxawaayu waxtu. jërëjëf sëñ Xaadim ci tontu bu am solo boobu kii sëñ Abdoulaye Seye la tudd nekk itaali mu ne ndax wax mën naa am limite maanaam mu am cinq cent mille jël deux cent cinquante mille def ko ko wala dafa am fu mu war a toll doo koy mën a def. déedéet xam nga <laughs> déedéet xam nga waxtu du ay. wax naa ne ne waqfu du ay eh, xam nga boo gisee eh, ah, lislaam dafa am ay aliyaat yu bari yoo xam ne yu mu def ci xeeti def sa alal ci yoon yàlla lii asaka la tudd lii saraxe la tudd lii infaq fi sabilillahi la tudd am ci loo xam ne nag waqfu la waqfu mooy loolu nga loolu nga doon def te nekkul obligation nga fexe ba andi allié wala mécanisme boo xam ne tey boo demee ba jóge fi loola man di continuer loolu nag du nekk ci saaru lu mel noonu ay ay cinq cent mille wala nangam déedéet loolu mënta nekk lu dul ak kër wala ab tool wala loo xam ne tey lu mel ni maanaam action boo xam ne da nga ko da nga ko da nga ko jënd ci fenn pour wax ne la cay génn moom war nga ko gannaaw waaye bu dee li nga xam ne nag tey dalay dalay dikkal ab 500000 boo am wala 1 million boo am wala nangama nangam ngir mu mën a doon waqfu mooy da koy wëlbati ko def jënde ko luy nekk waqf tey loolu mu wax tey man ngaa tey eh, dem jënde ko ay téere am nga sa ñetti million ne man jënde naa ko ay téere def ci ab bibliothèque indi ko fii ci Simousfa wala nga ënd wala nga wut barab boo xam ne fa nga ko teg ne nag waqfu lillaahi la kenn du ko donn jàngkat yi ñoo ko moom wala leneen lu mel noonu loo xam ne lu njariñ mooy fokk nga jënde ko loo xam ne dafay nekk du lu sax lu mën a yàgg waaye jëmmi xaalis bi moom du nekk waqf waqf toujours dafay nekk saaru matériel lay lay lay lay lay nekk lu mel ni bâtiment wala ab tool la cay génne nag ci xaalis mooy jëm fëre waaye bu dee loola ci baneen ca baneen bunt ci bunt yi ñuy eh, dimbalee nit ñi ci lay dugg muy sadaxa wala infaq fi sabilillah wala yeneen forme yu bari xam ne ci xeeti xeex ak ñàkk la mais wax fu dafa am eh, eh, melokaanu boppam boo xam ne eh, du jàggee lu jóg rek man caa dugg. jërëjëf ci tontu bu am solo boobu. Hmm. suñ Mbàkke Jaañ day laaj ndax ki am xam-xam di ko jàngale day dugg si tiyaaba ji nga waxoon si masalan ñi bind téere yi wala ñu ko jënd. waaw waaw xam nga bunti xam nga bunti bunti xam nga alxuraan maa ngi koy wax barki ak suñu Mustafaa sunu kilifa gi démb barki démb. surtout ci ñun taalibe Cheikh al Xadim yi sëñ bi dañoo ubbil bunt bu ñuy tuddee buntu xitma xitma xitma euh, aslul xitma fil Qur'an mooy yaa ayyuha alladina amanu hal adlukum ala tijaratin tunjikum min asabin alimin wax naa ko waaw loolu loolu xam nga leeral nañ ko lépp ci biir ci biir ci biir waxtaan wi muy majaatul wax xam nga jeexe bi moom la moom laa doon moom laa doon wax jeexetul wax xam laa ne foofu li tax di jeex bi est-ce que ci école la jëm wala ci daara la jëm wala même bu dee ca la wala ci ay nit fokk nga tax di jeex bi mais jeex bi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 أشهد أن محمدا رسول الله yokk ba ma yokk kon nag loola la la mën a assurer continuité boobee loola moom day mën a dugg ci mooy moom loola rek moo mën a dugg ci ko la nga xam ne nag mënta assurer continuité boobu mënu cee dugg jox naa la misaal ci lu mel ni ki sarax li nga xam ne da ngaa warlu ne man weer wu dee man warlul naa danaa jël ci sama salaire wala sama alal jox tubaa ci kanam ci misaal wala indil si fii ci daaray kaamil wala indil faneen loola waxtu woo génnee àdduna comme yow yaa ko doon joxe yow mi ko doon joxe waxtu woo génnee àdduna day jeex